may ngeen nit ñi. waaw may ngeen nit ñi moom. moom dëgg la te yaa ma gën. yaa ka nooy ka gën man ka ma gën. ko ñu gën ñun ñëpp. li de nangu naa ko waaye daal yow nangu laa ko nangul. Mamoore Mamoore Birame ak Faat may ma way. sëñ bi yow képp yaa tax ñu war a dem Italie ñun. billaay. bu la neexoon nu dem dara neex nu war dem kon dem rek ah du nit de kii. lu yaa nekk nii. maa ngi. taxawee nii. ah lu xew. yow démb li nga def noo ko mënee. ci lan. kàllaate bee waddal fii na. ay man loolu mooy tagg sama xol bi nga xam la bi ma ko yëg dafa yàgg buntu bu ñu xool naa ngir delloo ko mënu espace ma def ko sama poche mu wadd waaye nag c'est la vie. jaara na def ça va bien waaw mu lay andil affaire bi mu la koy nit yow du maafe nga wax waaw amul problème ok merci. laa ilaha illallah. ay sëñ bi ngay toj ak ginnaaw. waaye yow li mbaa jàmm la. jàmm ak salaam. man ndeka dewul fenn. yow loolu nga ma andi. man daal maa fa rom maay dem. demoo maay dem demoo ndeke carte d'identité sax amu ko. yow kooku sax amu ko nga may ko waxee carte daa il daxay la daa. man de mant mi daf ma bett li ma si gën a métti fii la ñëw toog rab maa rab ba ma abal ko 400000 te teggi woon na benn loxoom ba pare. yow mii. waaye doo ma ma yeggee ne amul carte ko fekk ba këram amul lu ma ko bàyyi. nee naa ko sama 400000 na tegu sama loxo wala ma foo bëgg ñu dem. nee naa ko nag loo gis man la. très bien. pourtant am naa gàcce bi ne. maa la koy ëppale fop waaye lu mënta ñàkk faaw ma am moom anama sax moom. mu ngi ci biir néeg mi ngi ci néeg sëñ bi damaa jox ñaari junni ne naa ko euh, jox ngir mu defal ko ci teraanga lu baax tey ndax waa ji ñuy jàngal italien yi dafa war a ñëw tey. tey la war a tàmbalee jàng. ah man man toog. ah moom xanaa daal dee te yëgu na ko. mu ngi lay dégg moo ko def exprès. xaw ma ko ko. ci wàllu sànq mi la dama sànq. yow. ah dugg ci nekk da ngay fëgg. ah man lii la toogaay. mi ngi noonu. ah yow man tam ngay dominer de. nu may dominer. Habib chemise de ay chemise de nuit nag dangaa amul fulla sa restaurant bii amoo loo ci def di ci lebal mante mu perte mais sa bi kii perte la man la jéego perte la man la man bëgguma jikkoon mu jëm waan koy bëgg a rey saa bu xëy di ko caw xiir gi. ñaw yéemul sax fayu. ñaw maa xam naa la sa pañe bi mbuus laa yar man damaa ñee pañeem boobu. nga xam ne balaa ñoo añ sañ gundoor jot euh, addiya addiya ñeewu ma ko loolu danaa ko man nag maay sa seen takkandeer di leen topp guddeeg bëccëg lu xëy ci ñoom yendu ci man dégg nga ne naa ko yóbbul ma rek loolu day doom nday bu dee baax ndax yëg naa ko bu yàgg waaye man nag moom bu dee woyu rek fii lay teeralee nee naa ko doo bandi bandi du ne bandi laa <laughs> xale man su ma nelaa dina ma fay samay 400000 rek dina ma ko fay maa xale man maa xale man ak gàttaayam man damaa defoon ne man dong nga gàtt ndeke moom pygmée la. yow bàyyil ma kooku mel ni briquet. daa it naka la lii daa la toxoon ma ne naa ñëw fii eggee la ko ndax comme man dama leen topp ni takkandeer lu nu xew lu fa xew lu ne ma yow ma ma ma tasaare ko. indeeti nga daal xanaa kontaan nga. yow maa ngi kii. miyaamu señor de Fall ah, nee señor Fall si ah, por la gente te partira el mm. italiano mm. so los motivos mm. de lesones ah, es como parla la lengua al italiano nee na fii ñun ñëpp ngir bu ñu demee ci Italie ñu mën a làkk ñoom si. Locke por la gente di signor Fall es eh, to la gente eh, plata parte an ah. italiano ko ah. petego te la lengua eh, maa ngi bëgg a wax ne foofu ah. fii ñun ñëpp benn lañ classe bi ñun ñëpp ñoo fi yem amul sëriñ amul dara fii daal man maay joxe ndigal man maay yaay sëriñ daal te aussi euh, lu ma waxoon nag yéen aussi na ngeen ko respecté. Hmm. cours bu nekk bon cent mille francs. si el primero el primero lesión Sanidad en italiano. Así como saludar en italiano, se dice buono, duro. Sí. Uh, por la mañana, uh, ah, uh, ah, escribir, la gente de parlare la lunga lo che partirà italiano você como como solidário solidário é italiano é italiano bom bom giuro como como Solidário. Solidário. É italiano. Italiano. Bom. Bom. Duro. Duro. Com. Com. Solidário. Solidário. Italiano. Italiano. Bom. Bom. Duro. Duro. Com. Com. Solidário. Solidário. É italiano. Italiano. Bom. Bom. Duro. Duro. Com. Com. Solidário. Solidário. É italiano. Italiano. Bom. Bom. Duro. Duro. Com. Com. Solidário. Solidário. É. É. Italiano. Italiano. Bom. Bom. Júlio, Co, Com, Solidário, Solidário, Equitaliano, Caligariano, Bom, Bom, Juro, Juro. Muxa, muxa, muxa, muxa, muxa, muxa. Tu. Ah. Como. Uh, pari, pari, pari davo. Pari. Não se disse, pari. Ah. Pa, Sa, davo. Sari davo, uh, sari davo. Si. <laughs> sari italiano walla sari sari daaro al italiano waaw ah. journée boobu monsieur bonne journée monsieur monsieur bonne journée monsieur como al italiano buongiorno e gracias muchas muchas <laughs> che kooma kooma ah? waxal ci kaw kooma kii daabo daabo non sëriñ bi ñu daabo de sëriñ daabo lañuy wax waaw waaw waaw waxal ma dégg sali daabo waxuñu sali de fii sali amu fi. sali daado la wax. waxuñu sali daado daado daado waaw daado ji. ñoom dañuy ah. jot na. sëñ bi énu ko foofu aan waxal aan. nafaraat ba mu gën a ma wax. dama bëgg a wax. waaw koy nafaraat bi mooy dernière fois bi yow neexoo jàll. waaw nafaraat ko.

Jola, Bom, Com, Salidado, Salidado Italiano, Italiano, Bon, Bon, Buongiorno, Buongiorno, Com, Com, Salidado, Salidado, En, En, Italiano, Italiano, Bon, Bon, Giorno, Com, Com, Salidado, Salidado, En, eh. En, eh. eh. Italiano, Italiano, Bon, Bon, Buongiorno, Giorno, Com, Como, Salidado, En, Italiano, Buongiorno. Gracias. Como, Salidado. è l'italiano. Buongiorno. Buongiorno. Salitato. È l'italiano. Buono. Sorno. <laughs> Como saludado al italiano, buongiorno. Como saludado al italiano, buongiorno. Como saludado al italiano, buongiorno. Como saludado al italiano, buongiorno. Como saludado al italiano, buongiorno. Como saludado all'italiano, buongiorno, come